mbokk ñu ngi leen di nuyu di rafetlu ànd beeg euh, seen site bi di Sunugal 24 di am mbégte lool nag ak bànneex ci dellu siwaat ni ñu koy defee saa su rek ci li nga xamante ni man mënuma koo ñàkk muy rubrique ñaw xalima euh, ci biir kër Mbayang tabaarkàlla macha allah ma di leen nuyu bu baax di leen ziar di yéen ñi nga xamante ni saa su yéen a ngi kàddu ñaan di ko jëmale ci ñun ci sunu jëmm ju doye di ji nga xamante ni mënaluñu sunu bopp dara ñu ngi ñaan ci kàttanu yàlla nag yàlla yàlla fayal ñu leen Euh, day am sax nag ndax kenn ku ci nekk sa xol mooy sa wërsëg te kenn ku ci nekk liggéeyee na sa morom mooy këpp ci yow kon mbokki internet yi maa ngi leen di kontaane bu baax a baax a baax dellu si waat nag dalal koo xamante ni tabarkàlla macha allah du gan ci kër gi muy euh, Serigne euh, lemu Ndiaye macha allah ñu bàyyi ko mu nuyoo mbokki internet yi di wax ne namoon nañ ko lool ci plateau bi sëñ Lemou maa ngi lay ziar. waaw ñu ngi delloo ziar soxna Mbaye mm. di la ñaanal rek yàlla defal la jàmm. amiin amiin defal la tawféex. Mm. ndax wa amma maa yanfa'u naas fa yamkutu fil ardi kii gënal jaam ñi mm-hmm. yàlla mooy kii dimbali nit ñi mm-hmm. te ci ngay dox saa su nekk kon ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax mm-hmm. di nuyu libaas ñu koy ziar waaw moom di jàmbaar lool. Mm-hmm. yàlla na yàlla barkeel liggéeyam di ñaan yàlla. Sénégal yàlla na fi yàlla def jàmm. amin amin mm. yàlla na fi yàlla def jàmm defal ko mbokk yi nga xamante ni taamu nañu génn ba nekk ci yeneen i réew itam yàlla na yàlla def ci réew yi jàmm waaye yàlla na yàlla defal leen jàmm sëñ Lému ci lu mu nekkoon jamono bii. waaw soxna Mbaye nekk ci kii rek aajo jaam ñi rek. <laughs> ci aajo jaam ñi. waaw moom loolu daal moo xawoon kii rek.

wala daf koy def joni joni léegi ak lan lay seetee. waaw ñun nag xamu ram li la ñuy seetee mais xam-xam moom daf ni nit ki bu la woowee. Mm. boo jëlee turam ak turu yaayam. Mm. wala boo nee may ma fii 30 minutes bu la ko mayee. Mm. mën nga ko fee seet. ba lépp loo bëgg a gis ci moom nga gis ko ci moom. ndax nit ki moom ñaan moom boo ko dee defal nit. nit wax la aajoom. te Soxna Mbaye nga bëgg aajo jo faju mu gën a gaawe ak sëriñ bu mënti doon na ko seet ba pare mhm, mhm. su seetee ay mbiram ba noppi mhm. maanaam su duggee ci ajo ja rek yàlla da ko ci fekk si ak doole waaye ñaare boo gisee ñu baree bari eh, ci sëriñ si mën na noo nit mën na leen wax ajo ñu fajal la defal luy faj aajo loolu rek aajo ja mën naa xaw a yéex a sotti te fekk sëriñ ba mën naa ñaan waaye ñàkk koo xool avant mu lay Eh, ñaan jox eh, li jëm ci aajo ja mhm. mooy waral pour nga gaaw a gis résultat du yomb moo tax li am solo rek mooy nit ki bu la yàlla booleeg moom ba mu woo la mhm. ko seetal ay mbiram mhm. ba xam fi ngay jaar ba xam lan nga ciy def mm. te boo ko defee yàlla mën na ci sutura defal sutura ci mm. aajo ju mënti doon tamit moo tax seet moom ramli la ñuy seete waaw muy xam-xam bu wér boobu tamit yonent yàlla Idris mm-hmm. moom la ko yàlla xamaloon d'accord mooy tomb yi waaw mu yéene na moom yaatu mm. euh, mu ba tey ci wàllu laaj ci wàllu seet gis nañ ne guddi yi ñu génn génn nañu wàllu élection yi génn ci li nga xamante ni moo mooy wàllu coupe d'Afrique bi bari ñoo xamante ni dañoo seetoon li saxaar fanaanoo ñoo xam fu ñu jaar ba tax ñu àttan a génn wax ay résultat waaye la ëpp ca ñoom résultat ya ñu wax ak li nga xamante ni moo am dafa wute lool lan mooy waral loolu ci wàllu seet waaw xëy na gis nañ sax waaye xëy na lan gis après suñu borom mooy indi dogalam rek moo tax waaye man moom di wax ci yooyu moo tax ay ay waaw ñoom man nañu gis nañ xam nga léeg-léeg mën ngaa gis tamit yàlla ñëw indi beneen eh, soppi la nga gisoon te yàlla day changer affaire moo tax man wax dëgg yàlla loolu moom soxna Mbaye hmm. bëgguma ci kii daal ndax man du wax ay di yooyu gañeek di yooyu daanak man yooyu moom du sama affaire man daal aajooy jaam ñi ci laa nekk ku ma wax sa aajo hmm. ma jéem a xool nan laa ci veewe hmm. pour man koo saafara waaw ba tey ci wàllu woowu ci lay desandi xam naa ne da koy bañ waaye ci lay desandi parce que changement de situation mën na am à la dernière minute ndax dafay firndeel ne ñooñu xamuñu wala xam nañu waaye suñu borom mooy ñëw ak dogal boppam. xam nañ sax mën nanoo bañ a xam loolu teewut a xam. Mhm. ndax nit mën ngaa ñëw ci sëriñ seet lool te du mën ñaan. Mhm. nga ñëw nii bu la seetalee du la gis te bu la ñaanalee mu dal. Mhm. kon loolu jotewut ak loolu dara <laughs> waaw. waaw moom daal xam naa ne daal. yàlla na leen yàlla defal jàmm rek ndax loolu foofu laa koy tënkee daal. Mhm. ndax nit ki wax mu mu am. Mhm. ak wax mu bañ a am teewut a mën a ñaan daal. d'accord waaw. Mhm. damay bañ ñu jël suñu temps waaye bu ñu paree eh, émission bi ca jeexital ba. dinaa ñëw ak man ak yow sorti nga def attaqué ma <laughs> ba xam ndax maa lay attaqué am déet. Euh, voilà mu ngi noonu euh, Serigne Lemou la ñu àndal euh, mu ngi dëkk fii ci Almadi macha allah 77 la 461 23 18 77. 461 23 18 moom mooy numéro am toujours même bi la euh, fële ci xam nga rek <laughs> bëgg tranquille rek calme ndax li ñuy liggéey li ñuy liggéey waa xam nga rek euh, dama dem gis ni liggéey bi foofu leen gën a tranquille mhm. te rawaxaan yi ñuy jëflanteel foofu la ñuy gën a mën a amee liñ bëgg mhm. ci ñaanal mu mën a nangu mhm. loolu rek moo tax mu mën fa bàyyi fi ñu toll nii daanaka ñu ngi fay bëgg a yàgg loolu ay ati ati at waaye yàlla na fa gën a yàgg daal waaw. <laughs> sëñ Neemu dafay dugg xàllu. waaw de yëpp dañ koy def moom. bu koy dugg foofu la koy duggee. mu sans départ rek waaye ma ne su ko faa dugg ndax it eh, a ju kal ma la jomte nii. Mm-hmm. saa yoo fa soxlaa pour xalwootu mën naa ko faa def. Mm-hmm. su pour feneen tamit mën naa koo def feneen. mën nga génn feneen. def ko fa mm-hmm, mu doon loo xamante ni lu am solo la mais balaa ñuy euh, balaa may ñëw ci lenn ci nga xamante ni daanaka moom mooy tënk émission bi muy wàllu kattan ak euh, yu yéeme yi ngi ciy def ba daanaka dëkki naar yi sax léegi tax nañu xajalatuñ ñu ci ki nga xamante ni mooy sëñ leemu waaye bu soobee yàlla guddi yi ñu toll dinaa la fi téye ndax euh, askanu Sénégal dañ la soxla ñu ñëw ci wàllu lenn ci li nga xamante ni dafa jëm ci wàllu ubbeeku ak samp nit. waaw ubbeeku ak samp nit moom. Mm. Euh, alam nasra inna fatahna am nañu ci liggéey yoom tax ne incha allah rabbi kuñ ko defal di nga ubbeeku ci wàllu sax bu dee wàllu samp ni war a fax naa maakaanaa lii an am na lim bi ciy liggéey ci quatre-vingt-dix yi di li mu maliku loolu des ne kuñ ko defal incha allah rabbi la nga bëgg falu la nga bëgg ñu samp la ci yàlla dina ko dogal ci kàttanam incha allah moo xam ci bureau la moo xam ci place la moo xam nga bëgg sax ay kayit wala nga bëgg nguur wala lépp loo bëgg rek loolu mun la ci liggéey incha allah rabbi eh, la nga ca bëgg ci falu di ko am wàllu fa euh, léeg-léeg nit ñi itam ci bërëbu liggéeyukaay ci bërëbu sëyukaay ci bërëbu fa mu mënti doon falang leen fa léegi day yomb loolu mu mel ni que réew mi dañu tollu réew moo xamante ni kenn ku ci nekk war nga wut kaaraange gis naa sax yenn ci oustaz yoo xamante ni dañuy wax ne ku fi ku ku dul aar sa bopp léegi tey ñu dégagé la ba pare toogee sa place fàtte la. Mm-hmm. kaaraange yooyu moom mi ngi fi wala. kaaraange nit ki damay faral di wax ne wa jawzaaw say atin say atin mis mm-hmm. la la suñu borom wax mm-hmm. ku la def aw ñaawteef na nga am fullay fayu lu toll ni lam la def ku la mm-hmm. tooñ na nga am fullay fayu lu toll ni lam la def suñu borom nag nee bu la neexee na nga jégal ko bàkkoo ak yàlla boo ko bàyyi ak yàlla rek yàlla fayal la boppam waaye bu la neexee it yow nga fayu lu toll ni def kenn dara waaye fexeel ba aar sa bopp ba loola waaye defit mu këpp ci kawam ku la liggéey pour nga dee mu dee ci kawam ku la liggéey pour nga dee mooy dee ku la liggéey pour nga yàqal mooy yàqale ku la liggéey pour nga feebar mooy feebar nit ki intention bu mu jëm pour jëmee ko ci yow loolu ci kawam lay këppwaat loolu am na lu ñu ciy liggéey ci suratul kahfi lu day waaw am na tur mm-hmm. tamit am na lu ñu ciy liggéey ci côté boobu waaye daal ci kàttanu su borom moom nit ki da ngaa war a fexe ba bu nekkee ci àdduna bëgg a mucc bëgg a àgg fi nga jëm mm-hmm. da ngay fexe ba aar sa bopp ba ci def kenn lu bon waaye fexeel ba aar sa bopp sauver sa bopp tey ñaan lu la jëmale kanam foo ko defee rek yàlla na la suturaal ndax jamono ji jamonoy aaru la jarunkaar ndax nit ñi seen mbonaay mm-hmm. eh, jéggi na doyee mm-hmm. bu njëkk da nga daan gis ay mbokk sax ñoo doon xeexante ci i biir mm-hmm. nit am dara mu koy mu naqari mbokkam wala dara waaye léegi nit ko dëkkal ci koñ rek nit ki nga yàlla soppi la nga am dara xam ku la bokkut ak kenn dara defoo ko dara. Mm-hmm. bokk ak moom lenn. Mm-hmm. da koy jaral mu toog ci sëriñ fay fa un million pour yàqal la. Mm-hmm. te bu ko defoon ci boppam sax avancé. waaye nag da koy jaral mu yàqal la rek faagaagal la. te loolu nag bala nga koo xam nga doonub sëriñ. man nag li may wax mooy. Eh, du ma nawtal nit. du ma liggéeyu nit mu dof du ma xabtal nit. du ma lor nit. du ma dëddale ñaa ñu nekk ci buum. ci kaw. Mm. ki may seetloo bu ma ko seetalee bu dee kii mu bëgg liggéey da am nu mu ko def. da koo liggéey. Mm. mënoo jël liggéey bi delloo ko ci kaw. delloo ko ci kaw mm. d'accord retour à l'envoyeur. mbirum nopp may ma ci tuuti gaaw bala maa ñëw ci kaw. waaw moom moom am na yéen def nag yu day war yu day waar waaw yoo am daf nii ci basmala. lañ koy liggéey. bisimilahi rahmaani rahim. Mhm. am na lu ñu ciy liggéey nga xam te ni suñu arrêté turu ku góor ki ak turu ku jigéen ki. Mhm. bu dee ku góor kee soxla. Mhm. Ah, am na lim bu ñu ciy yokk bu dee ku jigéen kee soxla am na lu ñu ciy yokk. bu dee ba nga ko bëgg soxna nag moo tax ñuy wax. wala nga bëgg ko borom kër. Ah. ba mu yàgg jafe-jafe am moom lu mel noonu ba ci ba tey sax naa ci baaxee. ko am tos nii dafa bëgg. mook borom këram ñu juboo mhm. wala mook soxnaam ñu juboo mhm. su defee junni bisimilahi rahmaani rahim mhm. mu ñaan li bëgg ci soxnaam si tifle ci nga defale ko ci kaas ñoom ñaar ñu naan ci. Mm. incha allahu rabi yàlla na leen jubóole. jàmm rek ci bi jàmm lool sax. am am benn jafe-jafe. bu dee ku góor ki mën na koo def bu dee ku jigéen ki mën na koo def. Mm-hmm. loolu nag koy baaxee eh, way dencante yi. ndax yàlla day tàppe si xol. mu ngi noonu kon mm, way dencante yi jël leen ko yéen a moom loolu. Euh, ba tey ku ci bëgg lu gën a yaatu itam woo ko 77 461 23 18 Serigne Lémou Ndiaye wax naa leen ko mu ngi dëkk euh, macha allah euh, te it ba mu fa nekkee ak léegi jógewu fa benn yoon li ñuy jeexale mooy wàllu kattan. wàllu kattan suñu yow kattan moom léegi. dégg mhm. dañ ko bëgg a jël def ko sa bopp soo <laughs> moomeelu bopp doo ko bokk kenn. wallaay secret bi. soxna Mbaye bi du lenn lu dul eh, yàlla bu nu booleeg nit ki. Mhm. dañ koy jox àq ak yitte. Mhm. jam laaj. loolu dong la. ak tamit comme te nii eh, danoo woo Euh, wax ñu wàllu kàttan ñu xool ko ba xam lan moo waral néew kàttan googu am ñoom tamit seen awra du jóg complètement am ñoom tamit nañ jógal waaye du mën a mel nan war nan soxla du dëgër na mu ware am na ñoo xamante ne dañuy gaaw a kii am a yegg am ñoom seen ndox dafa oyof wala seen ndox tuuti mm-hmm. loolu lépp ci xeet néew kàttan la mm-hmm. waaye liñ lay defaral mm-hmm. ci ñam bi lañ koy liggéey ñam bi soxna Mbaye lu doy waar la lu yéeme jamono ji tembe yi ma liggéey di ci am résultat ci secret boobu laa koy def muy ñambi ak jinjeer. ñambi ak jinjeer. te lépp turu yàlla génnul turu yàlla bu dee ñambi ji bu dee ku nekk bitim réew wala nga nekk Sénégal ku mu mënti bu dee da nga nekk Sénégal mën laa jox saafara si. Mm-hmm. nga toggee ko ñàmb ji bu dee nag nekk bitim réew mën nañ ko def ci enveloppe yónnee la ko par GP mm-hmm. soo ko jotee ñu la ni nga koy defee mm-hmm. waaye li wërtu wër mooy ñàmbi ngay wut dagg ko juróom-ñaari dagg benn dagg ñaambi boo xam ne dina bu mag lay doon kilo wala ah, nga am te ni di nga ko mën a am di ci mën a am juróom-ñaari dagg yu baax mm-hmm. soo ci amee juróom-ñaari dagg mm-hmm. nga wut lu mel ni baraada mm-hmm. wala bool boom des nii rek mën nga cee togg ñaambi ci nga jël saafara si sotti jël ñaambi ci dugal boo ci jiitu ñoom ñaar sax baax na boo ko defee ba pare nga taal gaz bi bàyyi ko mu koy togg bu ñurut sax na ci màndi saf sap nga bàyyi ba mu sedd nga lekk ñaambi guddi nag mooy mujj sa biir juróom-ñaari dagg yëpp ngay lekk ci muy juróom-ñaari guddi. Ah, waaye du jot benn dagg. ji ji benn benn dagg. d'accord waaye diir boobu bu dee sa soxna dafa nekk yow doo séy ak sa soxna ku koy def moom doo séy doo séy jigéen moom. da ngay toog juróom-ñaari eh, ba juróom-ñaari fan yi mat waaye fu juróom-ñaari fan yi matee. waaw foo jëflanteeg sa soxna dina dina la koy fa jaar. ci ñam bi bu dee ko soxnaam sori tamit boo ko defee incha allah bu juróom-ñaari fan yi matee di nga yëg kàttan goom tati nii di nga ni man ndeke lii li nekkoon ci man lan la. da ngay daal lu yéeme la soxna Mbaye te génnul turu yàlla ndax sóoratu Samsi lañ koy liggéeyee bu dee ñaame ji eh, am ñun ci boole nga xam ne dañuy nit ki. moo ah. yi moom ngay exporté ñàmbi ji. <laughs> waaw moom yàlla ñu ci suturaal moom. te booy demee da ngay <laughs> li gën a mooy ñàmbi ji am fépp. ah ñàmbi am may dem muy Dubaay fu mënti dem. waaw eh, ak bu ñu doon yónnee si GP. waaw rek mooy saafara si. d'accord mooy li nga li boo demee nga wut foofu ñàmbi. Mm. nga defar ko. waaye soxna Mbayang mm. li ñu koy booleel alaturu ki am te si nii moom moo néew kàttan mm. boole ko wasam si mm. boole ko ko yàlla li ñu koy booleel insha allahu rabbi nga toggee ko ñam yi defee ko nii la ko waxee sa dootoo dootoo tële ci àdduna ba pare li gën a garaaw bu dee côté jinjeer bi yaa xaw yi yaa matinu leen koy liggéeyee am te si nii boobaa da ngay jël jinjeer bi dëbb ko ba mu xaw a tucc tucc ba nga koy kii nga raxas ko ba mu set nga def ko ci lu mel ni baraada comme noonu nga jël saafara comme comprendre nga. daa koy tàngal ba mu tàng. def ko infusion waaw mel ko ba mu bax. Mhm. ba jinjeer ji saf sàpp ci ndox mi. Mhm. nga daal koy génne segg ko. Mhm. naan naan ko bu la neexee nga suukar ko bu la neexee bañ a suukar. benn moom it juróom-ñaari guddi. moom tam juróom-ñaari guddi soo ko defee waaw doo seqal soxna si dara waaye foo ko defee. incha allahu rabbi eh, soxna si nan la fa. yaa bu dee sa soxla tamit dafa sori. waaw soo yaay ci saa di nga carton gom si di xam ne yow niw carton dëgg mu ngi woon ci yow. te léegi ci ci la sax ba ci am na secret yoo xam ci la ñuy yokkee awra. Mhm. bu dee nit ki dafa gàtt. Mhm. am na ci loo xam te ci lañ koy yokkee. Mhm. mu wax ñaata centimètre. la bëgg mu tol ni waaye nag euh, ci lu yenu maanaa ndax ñun dañuy xam ne yenu na maanaa wala ñu du lor ndax laa darara wala diraara bul lor waaye bul lore buñ gisee ni centimètre bii nga wax daa dara lor ku jigéen ki moom duñ ko def waaye am na ci lim ci centimètre la mu tës nii ko boo ko waxee. Mm-hmm. ni moom nga bëgg mu toll ne ni ñu xool ko ak adat yi ñu koy booleel adat sa tur mooy déchiffrer sa tur. Mm-hmm. boole ko ak limu centimètres yooyu boole ko ak tur yàlla yi ñu koy liggéeyee. Mm-hmm. incha allah rek buñ la ko defalee sa or ni nga bëgg mu toll nii dina ko toll. ci diir bu gàtt duñ joxe nag bis ndax yàlla mooy maye. waaye ñi ci jaaral barab biir bu gàtt laataas lan leen jox muy jëfandiku mm-hmm. gis nañ ci résultat bu wér a wér a wér mm-hmm. te li gën a yéeme soxna Mbaye ak mooy mm-hmm. eh, kattan muy ci wàllu yokk bi ak ci wàllu ku néew kattan ku mu mënti doon boo xasee kattan googu à ah, vie la ah d'accord du ngay faatu ba keroog ngay faatu dootoo tële kattan googu ngay nekkaale mu ngay deewaale nga xam def nii bari na sëy yoom def nii sa kër yi sëy yu naqari moom dootoo ko am ndax sëy tas yi bari looloo ko waral <laughs> mooy da gis ku góor ki ku jigéen ki mooy dem ba bu dootul mën a muñ suturaal na ku góor ki ba sonn mm-hmm. gis nga ku jigéen comme ça nii ku mën a muñ la dëgg mënatul mu toog di ko suturaal mm-hmm. ba léegi mu ngi am mm-hmm. am na ñoo ni mënuñu la boo boo yëgatul bànneex rek ñaanal la baat dem nan dëgg la waaye lii li gën a yee mooy soxna Mbaye à ah vie ba karo ngay faatu moom dootoo tëlee nga xam te ni ay problème soxna moom dootoo te li gën a garaaw ni ñu koy liggéeyee dafa ànd ak ay tur yàlla ñu ciy liggéeyam te ni da yilif sa soxna da ko boo nee ko defal mu def bàyyil mu bàyyi toogal mu toog jaaral ni mu jaar nii eh, defal li mu def lii. Eh, boo tëlee boo moom. mu ngi noonu. waaye xam nga léeg-léeg nit ki mën naa bañ a tële. taxul mu yilif soxnaam waaye ni koy liggéey ñun. nga sëy sa soxna. foo jaar da koy yilif da lay loolu ci biir liggéey bi la bokk. da ngay moomee vendrage ci ci biir liggéey bi la bokk ndax ni man naa am carton lool te nii mu ngi noonu waaye daal soxna Mbaye waaw eh, macha allah loolu moom yàlla ngi ci liñ ci yàlla suturaal du lenn lu àq koy jox ak bala ñu cooy defal liggéeyal kenn lenn mhm. ñu xool ko loolu moo tax ci loolu liñ koy ko nit ki nga xam te ni moonu woo ndax adat yi ndax nit ku yoo woo nga nu mhm. am na sarax yu ñu ciy génne mhm. yu tuuti ñu ciy génne am ay tur yàlla koy jënde comme tur yi ñuy liggéeyee saraxe ko yoo xam te ni ñoo koy def eh, saraxe ko am ay sikkar yu ñu ciy def tamit bokkut ak li ñu lay yónnee nga ko toggee ñàmb ji wala nga toggee ko jinjeer bi waaye yii daal moom jamono ji muy ñàmb ji ak jinjeer ji mhm. ci laay am résultat cent pour cent te xam ma a bàyyi moom ndax maa ngi ci am waaw waaw fi ñu toll nii moom man waaw mën naa yem foofu moom ndax euh, a <laughs> la 461 23 18 moom mooy numéro am Serigne Lémou Ndiaye ni ma leen ko waxee ngi dëkk ci Almadies Euh, adresse bi changé wul mën ngeen a jël numéro bi ci whatsapp ak lépp su ko defee di ngeen ko jot surtout yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci biti euh, ñu tàggoo ak mbokk yi waaye nag temps yi dama la dama la kii woon parce que ma attaqué woon ci internet bi mais baal naa la bi lépp leeree lépp jeex na waaw waaw macha allah yow moom comme li waxoon rek ñu ne liñ ci bëggoon lu lépp leer ndeysaan ndax boo déggee suñu wax lépp dañ ni mm. eh, bu leerut mm. dafa nar a sonal mm-hmm. ci àddunaam mm-hmm. ndax comme góor gaa ngi dund yaay titi mu ngi dund mhm. titi mu ngi dund mhm. suñ ko waxtaanee boo déggee ci interview yi ñu ci def yëpp dan ni mhm. ndax man ba léegi du ma ne góor gi moo jur titi wate daa man ba tey néew ma góor gi moo jur titi far force mais dama ni nan ko waxtaanee buñ ko waxtaanee bu moo ko jur na titi jël baayam am ci ferte bu dee juru ko ñu xam ni juru ko mu leer ci bopp daal mu set moom titi set complètement mais heureusement Eh, yow it eh, eh, li nga ci defoon. def gu njëkk ga li la ci kii rek mooy dañ ni soxna Mbaye. erreur mu ci def mooy mënoon naa am lu leer ci ñee am ci leer ci paa ba pare. doog wax waaye jot a jot a génne. amoon naa lu leer waaw fekk sa génn bu njëkk ba. waaw sa génn bu njëkk ba da am ci ñee leer te amugoo ci tontu paa waxu paa bi. lu leer nga génn moo tax ma ni foofu soxna Mbaye ak moom <laughs> dama koy attaqué ndax sama xarit la waaye dina ko attaqué ndax jum na foofu. waaye nag mu ngi noonu waaye nag sant yàlla ndax xamul tax. Eh, yàlla defal na la ci ndam. alhamdulilah c'est l'essentiel. yàlla defal na la ci ndam. c'est l'essentiel te teggil nga tiiti tuuma. ndeysaan. teggil nga ko tuuma loo xam te si nii. ndeysaan. ba ala yow mi di mën la koo fay. ndeysaan. donte mu ngi ko dégg ay interview mu naan bëgguma cee wax nanga waaye soxla woon na. ku ko setal mm-hmm. wallahi la yàlla soxla woon na ko ko setal mm-hmm. yàlla suturaal na ko jaare ko sa jëmm mm-hmm. te yow ko la xam nag yàgg nga ci loolu ndax man ba ma lay xam 2S ba léegi mm-hmm. yàgg ngaa feeñal xale bu réer mm-hmm. yàgg ngaa feeñal ku réer ay mbokkam xamul baayam kon du du c'est la première fois kon nag bu la ci yàlla defalee mu tombé ci artiste bi euh, rek <laughs> waaw bari na ko ci wax bari na ñu ko ci wax waaye yow yow mi nga xam te ni nit mën ta def lu baax te doo ci dégg ay dóor la nit koo gis mm-hmm. muy woote da faaw ñu ni ko wala muy ak ci wooteek lu mu mënta doon wala ngay def dara ci lu baax foo jaar ñu ni kii kat eh, ay dóor la ci nangam la ci soxla waaw surtout guddi yi ñu toll <laughs> mm. waaye heureusement yow yàlla defal na la ci sutura eh, ba paa bi dégg na mu nga wax ak moom. Mhm. carrément. mu wax kàddu yi moom it daal gis na doomam. Mhm. ca Mauritanie. Mhm. léegi bàyyi na Titi complètement te loolu grâce ak yow. yàlla defal na ci féex te li ma waxoon léegi ci tàmbali bu am maa mayoon faxoon naa si fayam ko sofil ardi. mooy suñu borom dafa wax ni ki ma gën a bëgg mooy kii dimbali nit ñi. nee dama ko fi yàggal dama koy wéral dama yokk xéewalam. te dimbal ba dimbal jeex nag. dimbal gi nga def lu ko gën a rëy lu ko gën a rëy te xam naa ni séntu woo ci dara xam na ni yàlla tax nga def ko nga ci nga ci nga ci jiital mm-hmm. waaye te si tamit lu mu la jàppoon na ko dolli ndax da nga koo tegg lu mënalul woon boppam te jaaxle woon na ci donte day wax nii mel ni ko jaaxlewut mm-hmm. jaaxle woon na ci ndayam jaaxle woon mm-hmm. te képp ku doon fan sama ak mbokkam jaaxle woon nga ci kon bu yàlla dogalee nag nga teggil ko ko complètement tegg gu leer naa ñi wax dëgg fa yàlla nag euh, lu mën euh, <laughs> lu dul lu dul daal gën laa fonk gën laa téye euh, gën laa jàpp ñun nag lii lañ ci bëggoon rek mooy li tax ñu attaqué woon la ci mooy euh, première sorte bi nga génte amoo version pa bi loolu rek a taxoon mm. ñu bëggoon nga am yëpp comme nii ma leere nii nga doog a kii waaye comme yàlla dogal na ñun yéen a jooj leen amoon mm-hmm. moo ñu waxtaane ko ba feeñ ba titi gindeeku ndax lu ko moy da koy topp à vie loolu rek lañ ci bëggoon mm. moo tax suñu débat yëpp loolu lañ ci doon wax comme yàlla jaaree na ko ci yow ngay sama xarit nag di suñu yaay di suñu lépp kon baax na moom daal yàlla ci yàlla def tawféex yàlla gi ciy wut yi suñu borom dina la fay ba wis la ndax dangaa teggi tuuma mhm. te suñu borom dafa bëgg ku mhm. teggi nit ki tuuma waaw te teggi teggi nga titi tuuma teggil nga ko waa yaayam teg ci nag jërëjëf wallaay lancim nga tàggoo mbokki internet yi di ñaan yàlla Sénégal yàlla def fi jàmm def fi tawféex amiin amiin eh, yàggal fi suñu kilifa diine yi wasalaam taala barakatu waaleykum asalaam wa <laughs> rahmatullahi wa barakatuhu eh, Serigne Lémou Ndiaye koy nuyu baax di ko ziyaar di ko kontaane du ci kenn waaye nag eh, bi ma laajee sànq hors antenne rek dama ko wax ne ko soxlaatuma déggaat paa bi soxlaatuma déggaat titi ndax li ma def dama ko tuddee yàlla te bu ma ci xaaree payug doomu aadama dootuma ci am payug yàlla te li gën a neex ci àddina mooy nit jóge fi ñu ne moo fi defoon nangam ci lu baax dafa neex te man point yooyu moom laa bëgg di ci dox ci laa mas di dox ci sama émission yàlla na ma yàlla kàttanal ba ma mën a wéy di ko def ba xam ni mënatuma génn sama kër keneen jël relève bi di ci am yoonu yàlla yàlla bu ñu yàlla natoo mukk waxal nit lu ñaaw wala jëf-jëf ju ñaaw joo xamante ni day taqal doomu aadama déedéet maa ngi koy sant bu baax sëñ Lému di ko ziar di sant bu baax sama technicien du jour di sant mbooleem koo xamante ni yaa ngi àndoon ak ñun rendez-vous très prochainement ak beneen gan ci kàttanu yàlla asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu fi amaanillah laa ngeen jëf